damay nekk ci nguur defar samay ne immobilier la tabax samay kër ak samay nekk di ko luyewaat biir même nguur ku ma nekk affaire boobu tànk mu ngi am état bi à chaque fois day day dëkk di luye te buy luye tamit ñun contribuable ci la suñ poche lay génne parce que ñu ñooy fay taxe ñooy fay budget ñooy fay nangam pour ñu mën koo fayee loolu naa ku mënti ñëw buleen leen fàtte ne ñaari mbir moo am régime bi dafa changé ñoo am nguur gu bees nguur gu bees na lu mu fekk foog mu xool marché fu muy teg tànkam lan la peut-être même amoon na rapport mais rapport moom santaane ko woon mais bu santaanee benn rapport boo xam ne ci patrimoine bâti en tant que su paree rapport bi dana xam à peu près kan moo yor yëfi nguur gi kan kan moo def ay pexe bañ jox alali nguur gi boo xam ne waru ko woon yelloowu ko waru ko woon jël boobaa tamit beneen conséquence bii ñëw képp koo xam ne nii tey jox nañ la loo xam ne nii nguur gaa ko moom jox la ko dañ état bi da ko war a jëlaat looloo xew gine Guinée ba Doumbouya toogee am na si ba mu gisee ne Seydou Dalia Dalia Diallo dañ ko jox kër dafa jëloon benn kër goo xam ne nguur gi moo ko moomoon te nu mu ko jëlee demeewul noonu da koo nangu faj da koo da koo nangu ce sera la même chose fii si si si Sénégal képp koo xam ne nii jox nañ la loo xam ne nii nguur gaa ko moom nga xam ne da nga def say pexe yow parce que jege naa jege naa ngu jege naa président wala jege naa ministre nangam jege naa nangam def pay pexe ba jël nguur gi dañ ko war a jël jox ko parce que lu ñuy fay si location chaque année suñu service service yaag direction yaag ministère yaag cher na de telle sorte que te ñu am suñu ñun suñu yëfi bopp. après sax maa ngi doo comprendre sax lu tax building ba tey mënu ko ta pare après ak ñaata année ba ñu commencé defar ba tey ñaata ministère la mën a jël te et ñu nekk fi di louer. pourquoi ñu lee te ñu am benn patrimoine ba boo xam ne nii moo nekk fi boo xam ne nii kay bu ñu ko mën na la jural leen wàññil ñu yaxanal ñu suñ yaxanal ñu poos yu nguur gi boo xam ne nii telle sorte képp koo xam ne nii yaa ngi fi mën nga see jëriñoo lii daal c'est à saluer te du yem foofu du yem foofu am na yeneen yu mu ne dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko càmbaraat financier bu 2000 ba 2000 nanga mais foog ñu xool budget mille mille mille deux mille milliards trois mille milliards boo xam ne ni yow man gis ma sama budget bi sama bopp yow gisoo sa bopp kii gisoo sa bopp mairie yi employé ñu ngi gën di grève ne amuñ ko boo demee ci direction yi ñu ngi gën di grève te ñu ne am nañ budget tant de milliards en xaalis boobu yëpp ñuy compter ne milliards de milliards milliards il faut que ñu xoolaat de de de de 2019 ba 2024 fu affaire yi budget fu nu mu demee buñ ñu ko xoolee telle sorte que nu mu demee boobaa mu mën a xam moom fu muy teg tànkam man je me suis dit ne état de grâce bo boom ñoom bu ñuy falu dañoo fekk budget bu taxaw ñu commencé exécuter budget bi boo xoolee bañ ñu demee FMI sax nee nañ leen PSE bi lañ mën a PSE bi lañ ne ni ñoom defaraguñ seen budget bopp d'ici deux mille tu sauras da nga xam ne kat ñoom ñoo élaborer seen budget en fonction de leur priorité ñu xool nan lañ koy nan lañ koy dérouler ak ñeneen ñan ñoo leen mën a accompagner ci loolu pour l'instant ba 2025 mille moom. gëm naa ne examiner la ñuy xool di xool fu ñuy teg ci tànk boo xam du toll telle sorte que. juste pour ajouter ci ci ci loolu. xam nga am na ay méthodes yu ñu mën a utiliser pour am tuuti weccit ci patrimoine état am na yoo xamee ni yenn ministère mais dañoo teg sphère ministérielle jam ñaajo lu tere ministère yëpp ñi fa dem ñu dem fa yi euh, bâtiment yu ñu occupé woon fii mhm. même si c'est un bâtiment ou wala état patrimoine état les bâtiments louer transformer centre commercial wala mmh. building administratif mais dafa am ay services yu concentré je je euh, c'est même bizarre nous, par exemple euh, ministère nangam ben ci démembrement ma cité ñaata ñaata ay démembrement ministère ñom ñofa nek bu bees bi sax mu fa. ministère de la justice sax amna fa amna fa kii tribunal. Mhm. bu commerce. ak yenen ak yenen mais communication fa la nek communication ak yenen ak yenen ñu ñew ñu ne la par exemple euh, ñu yoré affaire euh, nettoiement ak yu mel noonu ministère bi Ablaye Seydou Sow yoré won urbanisme amna fa euh de quoi, amna fa sax mais pourquoi ne pas lier di bâtiments bâtiment yoo xam ne état moo ko ay ministère nekk fa wala ay démembrement ministère nekk fa direction nekk fa te ñu mën direction yooyu delloo building administratif wala ñu yóbbu leen ca sphère ministérielle bu Diamniadio parce que c'était ça l'objectif des sphères ministérielles bu Diamniadio pour permettre léegi nak bâtiment yi nga xamé né mom lañu am fi té ñu mom ko ñu identifier né ñu ñoko mom manam état moko mom mais ñu mën ci def lénen lo xéne ne mën na jural euh, état bi tuuti wéccit aussi euh, euh ba légui euh bu ñu jógee fofu wala sax peut-être wax tuuti ci